salaamaaleykum mbokk internet dalen daleen ak jàmm ci Sana Sport ans. UEFA Champions League bi ñi ngi wëyel première journée bi tay ji yeneen i jongante amon na bokk ci Pologne bi nga xamne dafa match nul ak Shakhtar Donetsk 0 bi partout waaye tam ñu gis ne ñi di wa Sparta Praha mais Sparta Prague dañu dal door Salzburg ñetti bal ci dara Celtic Glasgow mom dafa dal di am dam juroomi bal ci ben contre club bi nga xamne mom lañ wax Bratislava juroomi bal ci ben la ko dal door man 5 buts à 1 waaye Club bruge moom nag Dortmund moo ko fekk dëkkam dal di koy dóor 3 buts à 0 Manchester City moom dafa dal di match nil 0 bi partout diggante mag Inter de Milan voilà mu nekk nag jogante goo xam ne di metti woon na lool xam nga ñaari équipe yi bi ñu mujjee tase yàggul ci final la woon Ligue des champions ni ki daaw la wala daw jekk yàggul tey ji mel na ne jogante googulee dundaat nañu ko voilà jogante gi daal ndam demul ndam dikkul kenn dugalul Paris Saint-Germain moom dafa dal di dóor benn bal ci dara ñii di waa Girona ñu gis na nag li nga xamante ne mooy match boobu nga xam ne ñii di waa Paris Saint-Germain am na ko benn mbir ba nga xam ne xew na ci sax contre son camp la voilà maanaam on goal moom la ñii di waa Paris Saint-Germain amee but tey ji 90e minute comme da ngay gis ne foofu itam metti woon na lool seen diggante ak Girona Paris moo ko dóor benn bal ci dara waaye day contre son camp la Gazzaniga bi nga xam ne mooy seen gardien bi mel na ni moo dugal bal boobu kon mu mel ni yëf yi metti woon na lool bu dee ñii di waa Manchester City ñoo ngi xam ne ne lu toll ci juróomi at a ngi ni voilà jéewuñu ab match ci phase de poule te dégg nga ci seen dëkk te dugaluñu loolu gëj na am am na sax beneen kayiti xibaar bu ñuy xamal ne njëlbeen bi yoon la ci histoire Man City joué ca dëkkam voilà ci li nga xam ne mooy phase de poule te gañewul wala boog dugalul mooy li nga xam ne mooy wax ji maanaam joué match ci li nga xam ne mooy phase de poule ci Ligue des champions recevoir te dugalul sax ab but jëlee nañ ci benn taskatu xibaar muy xam ne njëlbeen bi yoon la ci histoire Mancini daal di amal du ni mel kon Inter da ko fekk dëkkam lakkal ko wit ndam demul ndam dikkul kenn dugalul li des ci jogante yi nag dinañ ko wéyal suba bokk na ci match bi war a dox diggante Barcelone aka ñii di waa AS Monaco match boobu nag ki nga xam ne mooy Lamine Camara dinañ ko ca xaar ndax kat moom dellu waat na gannaaw bi nga xamee ne kat abon nay jafe-jafe waaye nag wér na dellu si waat na ci entraînement yi tey jii ci àllarba ji sax ñu nga xam ne tàggatu na ak équipe bu AS Monaco suba ñu ngi koy xaar ci jogante googule Lamine Camara nag moom xam ngeen ne ci pré-saison yii de daf na fi match bu rëy contre Barça ci pré-saison yi nag laa wax keroog sax dugaloon na voilà dugaloon na bit moom kooku di Lamine Camara suba nag ñu koy xaar ba xam lan lay indi contre équipe boobu di Barça bi nga xam ne bi ñuy tàmbale saison bi ak léegi dañu joué di gagné waaye itam di dugal ay bit yu bëree bari Hansi Flick moo leen jiite Hansi Flick bi nga xam ne moo yoroon Bayern ci ay jamono ku miin Ligue des la suba dina wàcc ci lànk ñu xool ba xam ana lan lay indi waaye war ci janoo ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Lamine Camara ak AS Monaco moom Hansi Flick boobule mu dal di am élément boo xam ne day moom la ñuy wax dégg nga na gannaaw blessure bi mu amoon laataa ñuy soobu ci pression yi ko sax ci groupe bi loolu la ñu koy di xibaar bi xamal moom kii di Ansu Fati bokk na a janook AS Monaco waaye itam koo xam ne ba tey am nañu ci moom yaakaar ndax kii di euh, Hansi Flick xam ne na ko nee li ma gis ci Ansu Fati voilà daal dina koy doy ba tax sax moom nee nañu moo gën a tax sax kii di Ansu Fati des ci équipe boobu nga xam ne mooy Barcelone ndax kat yitte woon na ko te ne li mu jot a wane ci entraînement yi dal na xelam suba daal bokk na ci groupe bi moom Hansi Flick boobu sax de tey ji xam na ne de Barça mën na gagné Ligue des champions bi loolu nag xam na na ko nee na Barça mën na gagné Ligue des de te na ne nag Ligue des boo xamante ni club yi gën a mag maanaam club yi dàq football mooy ciy tase moo tax ne na Ligue des champions mooy the best competition in the world maanaam li nga xam ne mooy compétition bi gën a neex ci àdduna wala bi gën a rëy ci àdduna mooy Ligue des champions loolu du samay wax kii di Hansi Flick moo ko xam ne te nee na Barça pare na pour jouer contre équipe yi gën a xarañ ci àdduna bi te nag mën nañu gagné loolu nga xam ne mooy Ligue des champions bi ki nga xam ne nag moom la ñoo Jules Koundé ba tey joueur la moom dafa dal di àddu xam ne nag match yu bëri moom lay kaas match yi daal nee na dañoo takku lool lool te chaque année nag match yi dañuy gën a bëri mu na loolu nag tippi ay at a ngi ne ñu ngi koy kaas de mu ne mat na ñett jàpp ñeenti at ñu ngi kaas li nga xamante ne mooy ma dégg ma match yu bëri yi te chaque année match yi dañuy bëri waaye mel ni loolu nga xam ne ñu ngi koy wax daal kenn dégluwu leen mel ni daal kenn faalewu leen sax mu ne nag waxtu dana ñëw ci waxtu yi de bésee ngi ñëw voilà ñoom dinañ def li ñu tuddee grève de voilà maanaam daal xëy na xëy rek dégg nga maam takk seeni loxo loolu nekk loo xamante ne mën nañu ko xaar ndax ne lu mel kii di Rodri waxoon na ko fi Rodri Hernandez tey jii moom kooku nga xam ne mooy Jules Koundé xamle waat na ko nee na daal bu fekkente ne faalewuñu leen voilà continuer ci yii nga xamante ne dégg nga mooy mat yu takku yii nga xamante ni voilà ñu ngi ko joué mu ne bés ngi ñëw danañu grève ndax nee na chaque année mat yi dañuy gën a bëri waaye noppalu gi di gën a néew a amaguñu benn temps ngir dallu mooy loolu nekk loo xamante ni voilà lu doy waar la te nag bu fekkee jëluñ ci benn matuwaay grève dina mos a am ñu xëy rek dégg nga maam ñu faslante xànc ak morom ko moom kooku di moo dal di xamle lu nu ni ki suba ba tey ci jongante yooyu ñu ngi ciy xaar jongante gi nga xam ne war a dox diggante Brest ak Sturm Graz nga xamante ni nag jongante goo xam ne ñu ngi ciy xaar ñaari doomu sénégalais muy kii di Abdoulaye Niakhate Ndiaye ak Abdallah Sima voilà Brest dañuy jouer Ligue des Champions seen diggante ak Sturm Graz muy match boo xam ne moom itam sénégalais na dinañ ko dal di bàyyi xel match yi nga xamante ne joué woon nañu ko tey nag bu ñu xoolee biti moom taxul leen a takku lool wuuteeg démb démb joué nañu dugal lu ci ñaar fukki bal ak juróom-ñett tey ji nag fukki bal ak ñett moo dal di dugg ci jogante yooyu am na ci ñaari match yoo xamante ni kenn dugalul bokkoon na ci Bologna bi nga xam ne zéro partout digganteem ak Shakhtar dugalul kenn dugalul waaye beneen match bi nga xamante ni tam mu ngi dox diggante Man ak Inter de mila xëy na lii bokk na ci li gën a néewal biti fukki bal daal ak ñett tey moom la dugal ci wàllum Ligue des yi AS Roma moom daal dinañu dàq seen coach ba muy Daniel De bi nga xam ne ni ki daaw la jëloon équipe ba ñu dàqee José Mourinho mu ñëw nag di nga maam di gañe ay matcham rek mën nañu gis ne daanaka li desoon ci saison bi voilà match yu ama am solo daal di def waaye nañu gis ne ndoorteele saison bi mu mel ne ni yëf yi metti wala lool ci moom kon est-ce que foogu la ne tabaxoon ni ki daaw ci la doon liggéey ren nag mu mel ni am na jafe-jafe 4 match yi mujjee amul ci benn ndam 3 match ak benn défaite takal nañu koy bagasam mom koku di déroge bi nga xamné ancien capitaine équipe bobu la won jiite won ko diggante daaw ak ren dak nañu ko indi nañu kenen manam am nañu benen coach bu yes ñom wa AS Roma lu officiel la ci jamono bi ñu ko wax Ivan Juric moy ki nga xamné moy jité jiite équipe boobu di AS Roma benn atu contrat nak la signé am na option ngir yokkat benen mom nañu doon na tagat équipe bi nga xamné moy Torino jamono bi moy jité équipe bobu la di AS Roma bu dee Al Nasr ñoom tam am nañu coach bu yees démb ñu ngi leen di junj mbirum kii di Pioli bi nga xam ne pare woon na ngeen dem foofu ci Arabie Saoudite léegi loolu officiel na moom mooy tàggat équipe boobu nga xam ne mooy Al Nasr bu Sadio Mané moom ki nga xamante ne voilà moom la wax Stefano Pioli bi doon tàggat ñi di waa AC Milan ci at yi weesu ku am xarañte la nag ku am xarañte ndax wane na ko ci at yi weesu AC jafe-jafe ya nekkoon jamono bii ñu dem ba nga xam ne chaque année dañu ñëwaat ci Ligue des Champions yi di ci wane seen bopp wala gagné nañ fi sax Serie A bu leen fàtte gagné nañ fi Serie A ni ki daaw wala daaw jëkk moom kooku di dégg boobu mooy jiite équipe bi nga xam ne moom la ñuy wax Al Nasr bu ñu waxee ci transfert itam Pape Djibril Diaw Pape Djibril Diaw signé na ca Girondins de Bordeaux. Bordeaux nag moom xam ngeen ne moo ca national 2 ba gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne am na ko seen joueur yu baax yi yëpp ñu bàyyi leen ñu dem waaye jamono bi mel na ni bëgg nañu dellu siwaat ndax Pape Djibril Diaw bii de élément bu ama am solo la voilà jamono bi signé na fa bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi. Manchester United moom seen ñaari joueur dellu siwaat nañ ci entraînement mooy kii di Rasmus Højlund ak kii di Mason Mount ñoom ñaar ñëpp dañu amoon ay blessure tey jii tàggat nañu ak li nga xamante ne mooy squad bi wala maanaam entraîné nañu ak li nga xam ne mooy groupe bi entraînement collectif maanaam loolu xibaar la bu am solo Manchester United nag fan yi xam ngeen ne am na fi ndam lu am solo ni ki démb rek dóor yu méttee métti la ñu dóor kooku ñu doon dajal voilà jamono bi seen attaquant bi di xëy doon dellu siwaat na Rashford gis ngeen démb dugal na doublé Maysane Maw itam dellu si war na ci tàggute bi sukkandaw sukkandoo yi taskatu Arsenal ñoom itam amna ñu ñaar jour yu dellu si mooy di Ricardo Clafiori bi nga xam ñu ko jënde won fofu la ci Bologna ci Italie mu nekk défenseur bu am xarañte blessé won nak dellu si na itam ki nga xam mom lañ wax Saka ñoom ñaar ñok paré nañu ngir dégg maam jouer ci jont yoy nga war nañ ko am ni ki suba ba tay aju ci walum Ligue des Champions ki nga xam nak mom lañ wax Ivan Perisic mom dafa signé ak PSV Eindhoven nga xamante ne ni ki démb joué nañu sax ci Ligue des champions am nañu élément bu bees muy kii di Perisic bi nga xam ne ancien joueur Inter de Milan la ak équipe boobu la di Tottenham moom nag bëggoon foofu la nga xam ne moom la ñu xay dëkk xay dëkk la nekkoon ca dëkkam dal dina fay jógee ba signé ak équipe bi nga xam ne moom la ñu wax PSV Eindhoven bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi